bu Seex Xamsatu Mbàkke Sohaybu ñuy ñaanal ñu koy ñaanal ba baax li ñuy xam sëriñ Xamsatu lañ ñoo bokk benn bi bokk bëgg-bëgg bi moo ko ci jàppale ci wet yépp ba moom lay jokk ba man mën a dem joxam jëro koo fa xam naa nag kàddu yi ñu jox ndigal la dañ ko yëkkati kàddu yu gàtt gàtt gàtt gàtt lay doon yoo xam ne ci moom la jógee bàyyi ko ci Seex Xamsatu jëm si ci ñun taalibe yi mu ne naa ko leeral te bàyyi te ngeen xel muy li nga xam ne moo ñu dajale ci bis bii wuuti wut ak yi ñu daan dajale ci bis yu mel nii muy dundal seen Tuubaa rek ak bàyyi xel suñu bopp ci seen Tuubaa ak nag suñu Tuubaa suñu diggante ak moom ak pas-pasu fas yéene liggéeyal Serigne di ko feeñal ci yu mel nii loolu nag moo ñu fi dajale loolu nag gox bii ñu ko defee ci euh, njiital Serigne Bassirou mi nga xam ne moom lañ fi fekk si ak ñi mu àndal liggéey bi ñëpp liggéey bi àgg na ci Serigne Hamsatou mel na ne it fekk na ko fi ndax dara wut bu ko moo fi taxaw taxawaayu Cheikh Hamsatou te mat ko sa kii kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a doon def liggéey bii ci njiitu Serigne Bassirou Serigne bi sant na leen bu baax ndax jàpp na ne lu mel ne lii ku def yaakaar naa ne moom moo ki nga xam ne lu ko war moo ko war ndax daa jàpp ne moom lu ñuy defal Serigne Touba ci lu baax rek moom moo ko moo ko war def ba ku koy def ku ne nee na mënu laa xàmmeeg ku mu àndal di liggéey Serigne jëm si ci tool toolu Serigne Touba ci loolu lay dox ci loolu nee na demul fenn de ngir ay gàllankoor yu yu ñu koy liggéeyloo yu tax mënu koo may ku ne mu teg ko tànkam waaye lu waay def lu jëm ci sëñ bi rawatina xasida yi rek nee ñu ci biir di ko dégg di moom bis bu seet da koy wax te bu ok bu na ni farataale julli tisbaar ak timis ak gee ak takkusaan ak suba noonu la farataale dem ci jotaay yi di fekk yu mel nii waaye nag dafa am liggéey bu muy def boo xam ne moo ko gàllankoor ba loolu mun ko waaye lu mel ne nii neen su sañoon di ko fekk looloo tax saa su lu mel ni jógee rek dana yebal Serigne Cheikh mbaa wut ay ndaw yoo xam ne ci Serigne Cheikh la ñu jaar boobu foo ko sori sori sori sori yaakaar naa du ma toog du ma toog lu mën yoo xam ne Serigne Cheikh mi wóor sëñ bi daa am bëgg ñu dem fa teewale ko fa ci par sànni te yaakaar naa buñ fi doon def leneen lu bokk teg li sëñ bëgg na fu fa teew kon war nañoo xam ne Serigne Soutou moom fu mu yónnee ndaw rek wala mu bàyyi leen xel xam nañ ne jotaay boobu jotaay bu suñu Tuubaa gërëm la kon nag loolu jëru xeet te nag fii ñu koy def muy muy muy ci ci keere Dakar nga xam ne ci keere Dakar la bokk luñ fiy def rek ci lu mel nii maanaam loolu day daal dëkkal dëggal si day dëggal Sëñ Tuubaa ci bare bare bare ndax Tuubaa moom fa la garab ga sax waaye xob yi nag xob yi ñi nga xam ne yooyu ñooy ruuse ca ca ca garab ga bu naawee baax si fii rek war nañ koo téye bu dëgër ba xob bi bañ a dem loolu mooy xeetu ceeñeer yi nga xam ne ñooy feeñ ci ci ci ci gox goxaan yi di dundal lu mel nii ndax fi ne nii li muy tuut tuut tuut nii ci gisin nii jiw xeet Sëñ Tuubaa xàmmeewu ko gisul Ndakaar ba nam rëyoo ci jëm saal ko dinaan Sëñ Tuubaa xàmmeewu ko baas bi ñooyam képp ci moom bu fi kenn nit képp nekkoon bu fi kenn nit képp nekkoon nan jërëjëf Sëñ Tuubaa ba demam jot mu ñàkk tooy xépp dem ñàkk itam woowee dëgg yi dox maanaam tànk ya muy dox di ñibbi kër suuf soosee bu naawee ku mu fatt fatt googee nga fatt loolee mu la laal ndox mu ko sërëmi bu gànnaate ci suuf toog boo ko fa fekk nawet boobu du bokk ak nawetu bari beneen bari nawet noonu mu xas daal rek mbaa mu jël ko loola loola day daal di dul bokkati ci yi ñuy limaale xaqiiqa lay daal xam ne nit ki mënut a mënut mënu ko lu ñutu lu ñutu ci nit ki ba ba mën ba mën koo xam ki ko dund rek moo ko mën a dafa am loo xam ne la am loo xam ne xaqiqa mbirum suñ tubaab nag lu ca laal day am lu muy demee loo xam ne du bokk ak lu leen lu keneen laal dafa wax man na xol bu ngeen lamb su fekkee xol bu nar a texe la boo ca lambee xol ba fekk ko amul ñu ne ko lu tax mu ne qulubu jumlati lazina aflahu liyatawajjaha wa rabbil muslim daanaka xol bu nar a texee nii itam soo ko lambee daf fekkagul ñu ne ko lu tax mu ne qulubu man lam yuhibbuni ala wajrin wala yulaaxuuna ma ramu wala laama képp ku ma bañ jërul ngay sàkku dara ndax jërul loo ko am tey loo jóg di ko wut muy ab muy muy muy lu baax loolee ab safaan lay xottu ba ci sa kaw alamu man xasada nii laa yan sari méttiitu ki nga xam ne daf maa bañ méttiitam du jeex mukk ndax sawaraay ak fayam te sawara du jeex mbégteem gi ma bëgg wa bésru man yuhibbuni laa yan sari mbégteem gi ma bëgg du jeex payam te àjjana du jeex kon ñun amuñu lenn lu ñu war a def lu ñu bëgg Sëñ Tuubaa seen seen seen seer bi daan wax de euh, Seeraay Fall bi njëkk fi mujj fi seen seer bi dafa wax de Seeraay Fall day njëkk fi njëkkul ci sëñ bi mujj fi te fu ñu tuddee sëñ bi tudd ko am na ko waral mooy pas-pas ba wax naa la bi naan julli li mi baax baax baax baax julli li mi baax baax baax baax boo mun pas-pas julli gi boobu julli gi baaxul da ngay sëgg si bi rek ndax jàng wax naa fii Cheikh Ibrahima Fall ba ba ko Serigne Touba comme ni ñu gisee ne ci maam dañuy xamaat xaajal ak Serigne Touba lan bëgg wax foofu la mooy Serigne Touba xam nga Cheikh Ibrahima Fall du julli du woor te ni mu jàngalee julli téere yi sax mënuñu ko ni mu jàngalee woor téere yi sax mënuñu ko dafa wax ne nit ki bu yëkkatee ay loxoom inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar buy julli day julli gi day dox su diggante ak moom yàlla. loolu la yàlla wax de waaw pourtant ñun ñu ngi julli waaye mooy yàlla ñu ngi julli waaye ñu ngi julli di fen di julli di war di julli di naan sàngar di julli di doxaan di julli di sàcc te sa taa alxuraan nee na soo nee julli julli gi day dox sa diggante lool waaye léegi ñun dañoo julli wutam ah loolu mooy yoon nag ak dañoo julloo léegi seen waay dafa wax ne lim ne inna wala si la ko nag tekkiwul ne tudd yàlla moo gën a moo gën a màgg firi mooy neen tudd gi ngay yëg gi ngay yëg yàlla ci la wax jenn imam joo xam la imam wala si la ko fa ji dugg ci mu imam Malick mi ngeen dégg boobu nekk bul imam dafa romb jàkka yor mburóom def ko ci poosam waxtu toog saan jot mu dugg ci jàkka nga xaar mu julli ci dugg ci imaam dina tegal daal ne allahu akbar tari aw faje tari saar jàpp ci wow ruko imaam Malick daal di dagg julli daal di toog ci biir jàkka ji génn mburum li mu yoroon ko de buñ jàppee ñoom dañ koy rey ndax ñaari mbir la ji mu toog jàkka ji mu toog di ak dagg gi mu dagg julli te ak julli di demee ci yàlla bañ ko yóbbu ci sëb ko ba yëkkati gis yi war koo rey mu ne leen bala ngeen maa rey woo leen imaam ji ma doon jiite ma laaj ko ñaari laaj su ma yeeyee ngeen rey ma su ma su ma ngeen bal imam bi dikk mu ne ko yow yaa doon jiite mu ne ko waaw mu ne ko waxal sa diggante yàlla mi doon julli mi taxoon ngay julli li ma lay laaj nga tontu ma ci sa diggante ak yàlla mi taxoon ngay julli mu ne ko waxal sa diggante ak yàlla bi ñu tànnee ba nga nekk ba nga dem ci kanam ba tali fàccee tayu saa waxal sa diggante ak yàlla bi nga jàppee ci say woom ndax amul seen mbooroom bi ngay ñëw aw morsa bu wan ni woo fa nekk di niroog sa dugub soxna nga xalaat ko ci biir julli waxal sa diggante ak yàlla ndax loolu amul waxal rek mu leen xalaat daal waxal dëgg de bi ma jàppee ci rawam juru ko sama xel dem na ci bi may ñëw de am na sen bu ma romb am na marsa wu fa ne maanaam ci laam xel marsa woowu de nuroo naag moom moo ci leeroon mu ne ko ah loola tax mu ne ko ah mu ne ko man loola tax ma sën ma ndax man àgg naa ci yàlla foo xam ne ku jàkkaarloo moom man mu toll ne mo di jàkkaarloo moom te xalaat ay sën ak ay mbubu yu jënd na sa soxla man mu tënku ay maam moo tax ma def julli daanaka bi ngeen mën a ko waaw mu ne ko kon yaay naa leen ko ànd ak lu yàlla araamale lekk ci jàkkee ndax fu mu araam bi wax ma ko ci alxuraan foofa ko jëlee ñoom defal ko yow ñii la yow lañ naroon a rey waaye yow lañ far al far fal euh, imaam nii nee na sa tënkal yi day wax ak sa borom sa tënkal yi mooy boo nee nii nii nee na c'est un contrat mooy nee nga yàlla ëpp naa ngi ni sama ginnaaw bàyyi naa du ma xalaat lenn lu jëm ci moom yaa ngi nii sama kanam yow rek laa déglu li déglu sëlmal mu ne la bismillah nga di ka kabar tay faati tayu sa da di sëlmal julli gi baax muy suwa sa borom daal ila salat sala an ani fasaa wa munkar julli nga ba àgg taxalatu kenn ku dul man ar na la bu fii ba tisbaar doo ma mo mooy doo fi lekul arab bay mu yàlla do fi do fi wax lu araam bu tisbaaree nga defat ko mu ne la ar na la ba tëkkusaan tëkkusaan nga rek ko mu ne la aar naa la ba timis nga rek ko ba timis mu ne la aar la ba ge nga rek ko ba ge mu ar na la ba fajar nga def ko fajar mu ne la aar naa ayu bis doo mooy garanti naa la moom sa borom nga def ko ayu bis moom mooy moom moom mu defal la ko fural la ko weer nga def ko weer bu fural la ko at nga def ko at bu fural la ko fukki at nga def ko fukki at mu dox sa diggante ak mooy yàlla mais loolu mooy inna salaata tana ani fasaay wa munkar waaye sëgg bi ak sëgg bi Cheikh Abdou Lahad dafa toog ci daal waxtu timis julli ba sërmal daal di addi si juwaa man ña fa nekkoon nag xëy na jàpp ne loolu lu bees la ci moom mu ne leen mbaat dégg ko du def ñu ne tekk mu ne man Abdou Lahad di mosuma fàttali fu ma ni asalaamaaleykum ci julli te néew ma addiya si Tuubaa julli yi dara baax ci te buñ ko joxee addiya da koy defar ba mu baax mu delloo ñu kooku kooku xamul suñ Tuubaa dégg kon ñun li ñu war a def mooy bàyyi xel bu baax a baax a baax suñ diggante suñ Tuubaa te suñ diggante suñ Tuubaa mooy xasida amul lenn lu dox suñ diggante suñ Tuubaa loo xam ne am na lenn lu ko war a mën a lijjanti lu xasida naka naka yi murid yi ak suñuy dégg ñànk yi ñuy def xasida yi képp ku mën a lijjanti ku la nekk kon ku dox sa diggante ak loolu ëpp na te xeesu di wax Nour Daarayni bii wax na ne yéen a sallallahu alayhi wa sallam ci boppam nee na foo ko waaye mën a amee denc ko sa kër te doo ko jàng sax nee na ay bés gi dana dugg ci biir moom biir kër googee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ko Nour Daarayni wanaan la ginnaaw jaalibatul maraaxib nee na du man nisaama ila sahi si qadam du man nisaama ila sahi si qadam lu garaaw ngi noonu te bàyyiwuñ ko ثم النساء ما إلى سهي سهاب خدم فبر سما ويجيكم مجلق جفي كاي بحي نقر بوي سهاب تجفي كاي بحي سهاب يويو سين فاس يان ورم فريد فريد فاس مكت بوتران ابن أبي تكيرم كيال كل كيال بيال كيرم كونغ بس أي جفو بمر كنين جني جني سوف نه فريد فاس وجاي ورم كت موتة مونا نكسر القصيدة كيف هو ده يتخطى هواي جفي كاي بحي قدامك ولا ترضنه يا مسلم الحلال منك أنا فوق من السواك لم أجي في الشر وفي عالي منك أنا لو تبقى منك بهك نواتيك حقق لرجاء ذلك لكنك تسمح كالتنك وتسمح كالتنك ويقول سمح أنك بزوجة على الوش ما يودفع به قبل توجه إليه إلى سوى خارئه وجد لمن يقرؤه خير مراد خير مراد لمن يقرؤه نعم سيرجوها دقوا خمسة da lay bàyyiloo xel moom képp ngeen gis wax naa ne ko ci bisu xasida euh, euh, euh, Ndakaar Serigne Touba moom képp lañ gis ci koo xam ne moo taalif xasida moo taalif ab téere ba noppi wëlbati ko war na ko koy jàng cax ak ëpp ak ko ñi daan woy ñëpp ku ci masaan ba noppi da ngay foog teg nee muy xam-xam ku foog jariñoo ku bëgg bàyyi Serigne Touba nag dinaa la boo ko jàngee ci am xam-xam waxoon naa tësëru sixaar ñi képp tësëru sixaar ñi képp ko nee na ki koy jàng ki koy jàng te mokkal ko saxaawatan maam saxaaratan laa saxaawatu maanaam ak saxaaratu turaab ki koy jàng da ngay am xam-xam bi ba noppi xam am xam-xam naxu bi jëriñoo ko ba noppi wëlbatiku nag amaat ci texe àdduna ak àllaaxira wa kaw naa asan nas na taagidan ila sabilihi aqwam li kulli man tara wa kaw nuhu saxaaratan sibiyaan wa siibi wa subaan wa nisiyaan ah ci sawul seetaan nga xam ne da ngay jàng xam-xam bi ba am te bidaayatul maahi نهاية الخيار نينا يبو كاي باي غاي باخيا بابا تيجا سما تانك سما بن تانك لا لين روم لا لين روم بداية الماهي لا سما بن نكو بيمو كتاك نهاية الخيار قدمه على الوراس والاختيار لولا سيد كل سيد يختار بأن أحمد هو المقال ñepp na ko waye nak yeen xaar bi muxtar mo ci wa amna lu lo xam amna ko ci muxtar amulen ko ci man amulen ko ci mom mu yal mu ne ko dama la lo xasida yi ñu naan sept tonnes la sëñ bi def ku dul sëñ bi ko doon def ak yàlla mi taxoon mu koy def ak yonent sallallahu alayhi wasallam mu am na xasida yoo xam ne yonent bi képp ko mën a dégg dégg bi bi yonent bi képp ko mën a dégg mun ta mun ta kenn mënu koo dégg suñ doon jàng fii bu ko bu ko xam xamoon fii kenn du ko dégg ndax diisaayu xasida ga mooy wàcc ci sa ci sa kaw ba doo ko mën dégg wax naa fii sëñ kon kataba laahu tabaraka wa taala yooyu yi ba ngeen dégg si bari am na ci kataba yoo xam ne danaan yàlla ci moom moo bind xasida am na yoo xam ne ne yàlla yàllaay fas sama loxo ji ma may téye mu fas loxo di ma bindal li ma war a def lil muntaxatub kon moo bind lil muntaxatub maa yasurruhu bi laa nihayatin wa xidmati taqabala du loolu la wax loolu tax mu ne ko yàlla ci boppam moo xam ni may laaje ni ma war a laaje mu may wax bu ma waree laaj ak xam ne bu ma ko gisuma ko waaye su ma ko laajoon su ma ko mu ne ma laaj mooy أحتريتني جميع دون سرقي ولي تقول سود الوقت تلقي أحتريتني سبلي وما لب أسألي لبنا لا تحنا ما أقول لا أن نقسم وقد لا يبقى بس لا يبقى أنا أملي بعد اليوم تامي ورمي وقام سنتي كنت بقى سنتي كنت سنتي بقى كتبي لي كسي لي يعني نجس أنا كسي لي بقى نجس وانا لب كسي دي تدور تحت الحس سبق سنتي يدني تحت يوري له كيران أرس baynal kiraami haamidiina si tax mu ñu ne ko ñun de xanaa sa xasida yi am nañu ko dul màggal mu ne leen bàyyi leen loolu ñu ko dul màggal boo leen ba bàyyi leen màggal bi ngeen war a màggal rek ndax man yàlla màggal na sama xasida yàlla màggal na sama xasida li bal sasin min na sasin comme na ma ko waxee badjalta xabirta la xabirta xasaa yi di kama laha badjalta yow yàlla ci moom yaa ko sama xasida màggal ko am na bis boo xam ne nee na bis ci bis yi nee na bis bi ma li muy xat xat xat xat saa borom dana jur sama xasida yëpp yëpp dajale xasaar dajale dajale malaayka yi ak yonente yi yëpp ñu taxaw nee na bu yegg sama xasida yi par benn di ko puukale woo ci kanam ñooñu. kon ñun ñu war a xam suñ bopp la suñ suñu diggante xasida yi ñu war a xam suñ ci wàllu suñu diggante xasida coow li naka fi nekk bari lool waaye ki ub laam jóge ca laam ja di moom. Eh, fi jëm ca làmb di làkk bàkku xaar bu jógee di bàkku moo gën la ko xoon suñ eh, am sëtu am na man mu ko waxoon ne ko xanaa tudd gi may tudd ci tudd keneen de métti na la lool kooka ne ko mbàkke loolu rek ma dese ci am na xol adduna mu ne ko waaye bàyyi ba ñaari kër yu tase danañ xam bu boobaa ko yori daan ne ba booba kon ñu ñu war a xam suñu bopp lañ li li ñu yor li ñu yor adduna fi may waxee yow adduna ñun ñoo ko moom aqbalati dunya ilayya qablu la wax adduna wut si na ma te soxlawu ma kon lu mat a bàyyi xel la suñu diggante suñu wax yaa ngi dégg léegi nag kenn ca kaw bu nekkee ci suuf kenn te kaw mënut a xam la ci suuf kii na ci diggante bii mënut a xam la ci biir ki nga xam ne nag boo la ma waxoon rek ku bëreeg man yaa ngi bëreeg yàlla. biraasu man baara nii biraasu man ku ngeen wut si ci man wuti ci yàlla ba noppi doog a ñëw ci man ndax yu baari si mu tax a baara man wala ne ndax bopp trop amul lu fay nekk di di di wax wax ñu duggaat ñi nangam nangam déedéet dinaa ko waccal bi las mi ko xasaw bi loolu nga mu naa mën a ko waxee ni min maana hati law wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kullu mutaarihin wa jiran kon nañ teel a xam lu ñu def ak Amadou Mbacke léegi mën nañoo def Amadou Mbacke nag gisuñu ko ci suñu bët waaye waa kër Amadou Mbacke ni nii waa kër Amadou Mbacke ni nii kat képp ko xam ne nee nga bu fi suñu tubaab di gaatoon tey jii ma gis ko su ma diggee la bàyyi su ma teree ma bàyyi suñ si suñ seen mataaj jigéen la nga lànk moo ko dëkk. képp koo xam ne nee nga bu mu bu nekkoon su ma diggee bàyyi su ma daree ma bàyyi si yéen suñu mbàkk jigéen la nga lànk moo ko dëkk. man du ma koy ñam ñagal wala may wax nangam nangam nangam liñ ñaan ci bàmba te bokk ci dañ ko ci dindi ñoo ko ci mën a dindi te ñoo ko ci def nag sëñ bi def ko ci. xabar xabar ci bari na lool te ne woon am na ñoo xam ne ña ngay waaxu ñu bàyyi ak ñuy daw wuti sa war te kenn mënu leen def te nee na lu tax loola la war a loola mooy lañ nekkoon dama jaay nekkutoon na. c'est-à-dire bu set ñuy xëy di gott ci loo xam ne suñ tubaab nekku ci woon suñ tubaab diglewul lu yàlla tere terewul lu yàlla tere man talabal wusula li jalili la wax ana ku bëgg àgg ci yàlla ci yéen ñu ne ñëpp di taxaw ñu yaakaar ne day yëkkati ay avion jox ne muy leen xool yàqta seen bi sunnati rasul jàppale ci sunna seen bi sallallahu alayhi wa leer gi nag moo fees ci moom ku mu ne pëf doo nekkati yow nit loo waral Seydou Ibrahima Fall ñaan càkk-càkk yi ak seen siñ siñ bay saar ak yooyu yëpp nañu daan def dañ leen di sol muus dañuy muus yoo xam ne la siñ ba rottas sa ñoom mu yëpp moo duñ ko àttal bu ko dañuy yëriku rek muy dem dañoo ne dañuy wax yàlla def ko loo gisee ma sax daal di denc ab gis bu foofu la ko amee daal di saar kon lañu xam bu baax suñu diggante sëriñ bi bu wël lisim tadat yët yi la wax bu wël sa jat yëti yàlla moo dénkaan li sama loxo ne ma par force da ngay alal may dox bihi li rabbil adyati wa jaadali bil jayyi min xayri haatil watabi yàlla may jox ko rafet néew ma buñ la ñaata buñ la ñaata buñ la doy na waaw bul ma wax ñaata bul ma wax doy dañ la koo may yaa ko moom di jël di ma jox moo tax mu waxoon ne jaamu yàlla bu ma ne ci yàlla sama borom dafay kooka bu jaam di indi ay jaam ay ay jaamu yàlla ba si teg ci kanam borom bu ko nee jóor suñu borom danañ ko war a gàll. daal di sigg daal di xool loo xam lu may benn bu nekk benn mu si mu sabaat ko ko ne ko demal fay soo nee teel du a xamal suñu joor suñu di wax loo xam ni ma leen ci ñoom wéree waaw jàng xët-xët yi duñu ay caaxaan kenn deful sa kenn deful sa bopp ak jàngat bu leen ko def ay caaxaan mukk mukk mukk mukk yéenay sëñ mu yox ci kaw foofu ko kenn ku nekk war ko bàyyi xel kenn ku nekk war nga koo xel nañ ko farti ko damay bañ a jàll muy gën a guddi ta te te te waxtu yi kii na tey tam sa di ñaanalaat di sàpp ci ñu ñaanal ak nañu gën a jàppaat Sëñ Tuubaa bu dëgg te bañ ko boole tus Sëñ Tuubaa képp rek dong nga fi nekk te nit waaw koo gis moom ay jafe-jafe rek soo lambee xool ba sëñ bi dëgg tara tara tara tara dara wallaahi laasim sieb laat la ma waxoon rek bu mur yëpp àndandoo woon genn kàddu maam adduna sépp sax la waxoon bu yàndandoo woon genn kàddu rek ñëpp taxaw silencieux nga xam ne adduna sépp dañu àndandoo ñëpp taxaw ñu wax benn baat nga xam ne bu ñu ñëwee teel benn fetal wala ñu ne ñu bës ab bidon mu sone ñëpp waxandoo ñëpp àndoon daal ne jërëjëf suñ tubaab mu ne ah mu ne du defee loolu dañu wàcc ci leen ko asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf jërëjëf sëriñ Tuuba